Daarakoki TV, la chaîne au service du Saint-Coran, la seule voix officielle de l'Institut islamique Cheikh Ahmadou Sakhir Lo de Koki. télé bi liggéeyal alquran al karim topp leen ñu ci makaan ak studio bu yees bii dëppoo ak jamono salle d'accueil régie ak i matériel yu dernière génération. émission plateau édition spéciale Daara Koki TV télé bi dundoo tey dundal alquran al karim reportage xutbatul jumaa Daara Koki TV ngir njàngum alquran bu leer te set te wér